da Fass di doon bëri ak Zoss am daan ki nga xamante ne mooy Zoss nag nga kontaanee woon bis boobule. Ah, xanaa kontaan rek ñëpp kontaanoon kay. kër gi yëpp dafa kontaan Ada Fass sama doom la. sama doomu càmmiñ la mu yëkkati ko jox ma ko maa ko yar. ba mu amee ñetteet la ma ko sama càmmiñ indil fii. maa yar Ada Fass. maa ko yar Ada yaay xamul papa. man la xam man maay bàjjenam. waaw maa ko defal lépp. maa ko dugal école maa ko jàngal. fekk sëriñ Jamil bii la jàngee alxuraan waaw jàng na alxuraan jàng na alxuraan ba daan jàngale sax waaye kam ko affaire xale moo ko dugg mu ne dafa dafa bëgg a bëri ah ma ne ko Ada Fass ma ne jàng laa la sant ndax ñun ay kat nañu saraxule nañu xamuñu bëri bu ma sañoon daal nga jàng boo sonnee si jàng bi man dinaa la fayal formation sax nga def formation mu ne ma bàjjan bu soobee yàlla li nga wax noonu laay def damay boole jàng bi ak bëri ndax gis naa booy ñaam mi ngi université ma ne ah loolu de dëgg la boo ma ko defalee de man ci laay kontaan ndeke def may nax bu jógee dem bu ñuy bëre mbëri la daan àndal fii ba Thiès fii ba Mbour du ma sax du ma sax tàggu man maa koy gëj a gis rek ma laajte ko ñu ma dafa ànd ak du dafa ànd ak du. waaw parce que xam na ne bu la waxee ne man maa ngi bëre ji da nga waan demal ci école bi. doo mës a nangu xaw ma ne mi ngi bëre wóor na yàlla. néegam ma nga fële ci duq ba jigéenam yi xam nañ ko ñu nëbb ma ko bu jegee bu dafa daan def mbapat mbapat na nag ah dafa dafa jékki-jékki nekk mbër de dafa yàgg mbapat di daan bu jegee mbapat bu ñu ñëwee bu ci buntu kër gi mu ne ñu mu àndal noppi leen ndax sama bàjjen bëggul ma bëre bu fa kenn def bur bi ñu yoot ndaan ko dem seen néeg xam nga fee dafa sori man maa ngi tëdd fii nelaw du ko sax yëg ba mu am benn benn bés daal laa dégg bur ma dégg euh, kii di corne waxtu yi di corne ma ne waaw lu xew si koñ ma daal di jóg ubbi sama bunt fekk man tëdd naa sax ba nelaw bu yàgg ñu ma aada de moo bëree euh, moo moo jóge ji bëre ji daan ma ne leen waa aada faas kañ la commencé bëre ñu ne ma yaay aada faas commencé na bëre bu yàgg am na fukki drapeau doom sama doom bu nekk fële moom la foofu la daan nëbb drapeau yi ma ne ko ah, de bett na ma ndax man dama ko waxoon ne mu bu mu bëre ndax man xaw ma bëre waaye comme que loolu la bëgg ah yan na ko si yàlla jàppale. waaw mu daal di continuer nag ba yàlla def mu am essence. Mm-hmm. mu am amee licence ñu toppatoo ko nag mu mu bëre ci arène yi. muy ba egsi fii nii bu daan mbër yu mag fu mu toll nii. Mm-hmm. di ko ñaanal nag fu mu bëgg a jëm. yal na ko fa yàlla yóbbu. waaw roi des bu mu bëgg a nekk. ah yal na ko yàlla defal. yàlla mën na ko yàlla yàlla ci dimbalee si lay réussir. waaye loo xam ne bëgg ko boo ko si naree forcé da ngay sonn moom. da ngay sonn wax nga dëgg wax nga dëgg kontaan nañ bu baax. ci ko neex ndax aadama man maa ko jur sama doom la waaw man la xam yaay man la xam paap xamul kenn la ko dul man kër gi la yoroo ba mu fi ñëw ñetti at la fi am waaw ba mu ngi takk jabar ànd ak jabaram luyee seen appartement di leen ñaanal rek moo ko ci Lamine mm-hmm. ay nit xale yi baax nañu wax dëgg yàlla amuñu ñu ci benn bañ fi dëkkee ba léegi ñu ci benn problème ñëpp nañ may cër parce que yàlla na dund te am ndey ak baay. amiin amiin waay yàlla na ko fi yàlla waaye ba ci kanam ba ñu koy muur di ñëpp ñu fekkee ko fee mu nekk tamit lu tax mu dem fa ah yàlla na doon lu gën ci moom waaw yàlla na am loo xam ne daal moo gën ci moom waaw yàlla baax na. amiin jëf kontaan naa yal na yàlla defal jàmm yàlla guddal say fan bàyyi la fi ba ci kanam ba ba euh, Ada Fass nekk roi bi nga ko ñaanal macha allah. yàlla de ba ma xëy yàlla defal kontaan naa maa ngi leen di fu ñu bëggee egg daal yal na leen fa yàlla yóbbu. amiin amiin waaw kontaan na jërëjëf waay jërëjëf. yaay abi moo abi mooy yaayam. waaw abi mooy yaayam mbax ba ba mu yaayam di dee fekk xale la moom abi la xam yaay. abi téye ko téye bu rafet wax dëgg yàlla waa kër gi yëpp téye ko ñoom ñëpp daf leen jox cër parce que Lamine tamit amul benn problème xale bu baax xale bu yaru xale bu jox cër mag xale bu respecte mag wax dëgg yàlla kontaan naa si ñoom torop jërëjëf waay merci beaucoup maam Boy kontaan bu baax yal na yàlla guddal say fan merci beaucoup. amin amin amin amin jërëjëf yàlla leen ko yàlla defal amin amin waay waaw kay ñu sant yàlla bu baax yéen tam maa ngi leen di gërëm di leen sant si dérangement bi wax li nga ñëw war a bu baax ndax mag mag boo xam ne yaram yi neexul nga ñëw di ko déranger ñun ñëw war a jégalu bu baax a baax maam booy yow doo ñu jégalu mukk del bàyyi rek ñu jégalu ñun wallaay seen dubaan ngeen def samay doom ngeen samay set ngeen waaw seen dubaan rek ngeen def jërëjëf waay kontaan naa liggéeyam amul liggéey bi moom mooy seen teraanga yéen tamit yal na leen si yàlla jàppale yéen xam fu ngeen bëgg a egg yal na fa yàlla amiin amiin maam booy na leen yàlla may ay soxna yu baax nag amiin amiin surtout loolu bëgg naa sox bëgg naa soxna trop nag macha allah <laughs> nag man man nga ne ndëkk takk yaay aaw yow yaay aaw bare instant yaay aaw te sax te duma am ñaar benn benn rek laay am benn kese laay laa bëgg bu <laughs> si kenn am ñaareel jërëjëf waay <laughs> Ada Fass mooy nga xam ne xale bi nga xam ne mooy nigérien bi eh, ñoom ñaar daa am du yàgg Ada Fass daan na ko waaw me lii li rafet na de waaw mais sama waa ji yow foo toll naka mu. waa ñii rek si kawam de saa yi moom mun nañ ne xel dal na. ndeysaan xel dal na macha allah ñëw ngeen fi ngeen war a ñëw xam nga maanaam sportif soo koy seet da nga koy fekk si bërëbu liggéeykaayam. Mhm, mhm, mhm. te sa waay moom chaque jour nii lañ koy defee. boo bu nekkulee saal mi ngi géej bu nekkulee géej mi ngi fii macha allah. xel dal na moom am nañ yaakaar waaw mais waa Fass yëpp nee nañ combat bi du yàgg foo leen ko teg yéen waaw parce que ñoo nekk xale rek dañoo liggéey tamit ñoo nekk xale dañoo liggéey xam nga wóolu suñu mbër tamit nag xam nga ku ñuy bëreel champion la mais xam nga ñu dañoo xam lu ñu yor rek suñu marchandise ñu yor ñu yor la ñu wóolu te dañ ko xam loolu la rek waaw ndeysaan Ada Fass mi mi doomu Fass war a indiwaat beneen beneen beneen kanam war a indiwaat beneen beneen beneen beneen beneen façon façon façon bëre parce que Zos daanaka nu moo bëre gars yi ak gox bu benn waru doon benn waaye plateau waaye daan na waaj jël bu rëy. waaw champion la fi dafa bëri ay ah, ba léegi ñu ngi ñu ngi ci entraînement Ada Fass tey jii ñu ngi jël koo xam ne saa yi kanam moom feeñ na ci internet bi ñëpp xamee nañ ko Ada Fass muy gaucher gaucher ñu lay maa ngi lay fay di la jox sa wàcc waaye di si seet bi ngeen di si. waaw mais gaucher tey jii waaw ñu ngi am fierté nag di la jël ndax yow ku la xool gis image Ada Fass waaw gaucher Ada la indi ci combat bi. waaw jom rek waaw ne woon lu passé passé na quoi instant bi ñu ngi ci leneen quoi ndax luñu suñu luñu viser moy roi des arènes. ada selamat. Jangan pernah pernah kau nak kirim Logis di ya, Bukit. ada pas. Ndam Stop. Stop, stop, stop. Oh. Oh, oh. Oh. Oh. Oh, hít hít on down. Zem état forme à défense. Waxtan ci. Forme à défense. Yow lolu lolu lolu lu am am solo la. Xolal xolal xolal rotation yi. Ni ko xolul doko xam. Rotation yi ni ni maanaam ku nekk ci forme doko gis. Doko xam. Ndeysaan. Laa xuma sale la. Mais mais tamit plateau plateau nag nag kaay ma wax la day dem MMA nag nag daanaka gars yi ko foofu waaw moom moom moom moom maanaam box ko box mm-hmm. yëfam mm-hmm. la box yëfam la box yëfam la xoolal xoolal xoolal xoolal dóor gis nga nu mu def waa ji mais mais ba léegi lu mu mën ci bëre ba léegi indee ko ci làmb ji mm-hmm. lu ci bëre billaay wallaay ba plateau ko indi ko plateau mbot la gën a mën ci bëre ah, te daanu ko ay dóor mu daan rek la ngay gis incha ah, allah suba rek waaw ndeysaan Siweulko TV en direct mhm. entraînement Ada Fass waaw ndeysaan kontaan nañ ci loolu de